jury benn président jury boo xam ne dafa génne ay dafa dàq ay élèves suspension bu xam ne nii naqari na Sénégal yu baax a baax on va parler de sa mais avant ça nañ wax si euh, li nga xam ne nii moom mooy euh, son bi nga xam ne nii kii di ay Aïcha Koné mhm. génnee na ko gannaaw ko gannaaw ko génnee vendredi passé je crois jeudi passé da ko génnee son bi nag moo moom tuddee tuddeewoon jongoma waaye si son bi am na ay critiques yu bëri nga xam ne nii maanaam am na si waaye si loolu tamit am na léeg-léeg nga xam ne jongoma wala jonge jonge di moins parce que man dama sax ma dama waaw jongama la waroon tudd nag waaw parce que moom la ko jongoma waaw parce que noo demal parce que waaw nga wax ko alors si loolu tamit euh, amoon ay critiques yoo xam ne ñoo ko def maanaam ci son bi waaye tamit ñeneen ñi tamit jàpp ne est-ce que nu mu génn maanaam Prince Art nekkul maanaam du répliquer euh, si si nga xam ne ni mooy carrière wax na si moom mooy Prince Art waaye wax na tamit son boobule de de même que nga xam ne mooy Aïssa Koné daal ñëwaat si plateau bi gën ko forom fàccee. alors man Prince Art c'est ma famille déjà. Euh, tey bu ma doon def dara ñu ne ma dagg ko léegi léegi nga ñëw fekk suñu damay bàyyi lépp ma ñëw. voilà parce que samay yaay yu fa nekk sama lépp lu ma mel tey ba ñu naan Aïcha ba tey sax ngeen tiim ak caméra ñoom ñoo tax Euh, nit ku nekk nag muy euh, ñëpp ñu nekk foofu ñoom loolu lañ ma doon ñaanal nit ku nekk yaa ngi ñaan yàlla nga gérer nit ki defal ko lépp ba mu mën a dem demal boppam alors euh, sama yoon laa nekk di demal sama bopp du coup du metti si yow par rapport ak ni nga ni nga tàmm foofu nga bëgg a jël sa carrière bopp en si sur le plan financier ak ni nga sur le plan moral aussi est si yow. boo amul sañ ak fit bi rek doo mën a dem. je me dis àddina lekk sa fa metti alors euh, da ngay da ngay dem rek foncer loo am jël. mais sa divorce ak ça lu ko waral parce que ñu bëri ñoo ngi naan dañoo favoriser yenn artistes yi nga xam ne ñoo fa nekk ku ci mel ni Ndaxte Lo ku ci mel ni Moustapha li nga xam ne ils ont sorti récemment leur produit yow. ak keneen ki nekk grand voilà tu avais du mal à à ce que ñoom ñu dem la si kër te ñëpp xam nañ ne Aja Kone mën na woy loolu. voilà elle, elle a une très bonne très belle voix je veux dire. alors man dama jëkk ne peut-être nit yi dañoo réeree mbir man ñooñu ce sont mes frères euh, te ñoom tey euh, loolu mooy nekk seen première single du coup ñun ñëpp loolu lañ leen doon ñaanal parce que nous dañu doon toog suñu biir ku nekk am sa rêve précis kenn ku nekk di la jàppale si loolu. boo leen xoolee way bi ma génnee ñoom ñëpp dañu taxaw jàppale ma si. Mm. alors amul benn signe de haine wala loo ragal naa lépp mën na ma jëlee presse à suuf ay sama xarit yi nga xamante ne ñoom ma je dirais même pas samay xarit mais samay sœur mm-hmm. yu ma màggandoo ñoom ñuy génnee man ma ne damay génn bàyyi leen xanaa kon ma aigri ce sont mes mm-hmm. kon quelles sont les raisons euh, non les les raisons mm-hmm. nit ku nekk muy entreprise muy euh, lépp loo mënti def si àddina yaa ngi ñaan yàlla bés jot ba nga amal sa bopp dem mbaa du ñu nga gis euh, lu ñu mel ni Mia Guissé mi nga xam ne

waaw loo ko xamal waxal ma ko ngir yàlla lii li moo ko moo ko waxee fii du baax maas. la. <laughs> ah. <laughs> may laaj ko yàlla fayee euh. <laughs> non je blague. c'est mon frère. sa frère alors Ousse. dégg nga Aïssa Collé si génn bi nga xam ne génn na ko fa nga xam ne fo mooy presse A. Mm-hmm. waaye tamit euh, si son bi même interview bu bu bu continué wu da ngay son bi mu naan. yàgg nañ di ko critiquer si li nga xam ne depuis dix ans moom si wàllu showbiz même fekkee xaay la sax mais yàgg nañ di ko critiquer si son bi euh, te c'est pas la première ñu koy dégg de ko que Ahmed se sànq rek wax na si. ne mhm. jàpp na ne son bi dafa des lu bëri est-ce que yow sa jàngat loolu la wala da jàpp ni génn génn mu génn mu génn Prince Art moo indi lii. non non non ah. génn bi mu génn Prince Art mënut a indi lii ci sama xalaat ah. parce que nag Prince Art label la moo fi sax label nag. Mhm.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 clip bi wala bi ñëpp d'accord ne clip bi man man. Ah, d'accord mhm. parce que sànq euh, yaa ngi wax dafa ni jonge jonge ñun Sénégal xaw ma nag mu bëgg ko yóbbu feneen waaye ñun Sénégal dafa am lu ñu tuddee jonge mhm. de un jonge ki war dëgg sax ñu di ko wax mooy ki am boroom kër. dëgg mooy ki am boroom kër même amoo ko war nga jonge waaye dëgg-dëgg ki war a jonge sax dëgg pur et dur mhm. mooy ki am boroom kër koo koy xam jonge waaw koy xam jonge ñun dafa dafa am luñ moom am luñ moomul moomu mooy li ma la waxoon fii démb ci bi ñuy wax Sidi Diop ay tubaab ak nangam nangam sàngam mhm. ma ne la man rusuma ko ma doonoon musicien anglais ñu war ma làkk anglais ma ànd ak nit ku ko dégg toog naan ko lu mu wax wax ma ko su ma lay tontu tontu la nga awmeew moo ko kersa te it dafa war a jàng ngir ëllëg mu mënal ko boppam comme Youssou Ndour maa jigéen mhm. comme Wally Seck comme keneen te Sidi dafa débrouillé ba wax ni mu bëgg a wax en tout cas ki doon poser question bu dee nasaraan wax na di dégg na tontu na ko te dégg na te ñu mhm. doon seetaan it comprendre nañ bu doon keneen a ko wax it duñ ko critiquer mais lii du critique euh, Sénégal nag dafa am nu baaxoo métti mooy nit bu la waxee da ngay jàpp critique la te da lay defaral jonge maa ngi fa woon maay dellu si waat bu baax a baax a baax les brèches la rek bu ma doon kii pour comme ñu ñuy gisee li ma la wax jonge ci ku am boroom kër dañ ko gën a gisee koo koy wane jonge moo wara waaw wane jonge dëgg-dëgg teewul nag ndax ndoxaan daa am mhm. booy doxaan li ngay woon nit ki xëy na ba mu takk la loolu la mais mhm. jonge Mm-hmm. dafa am ay astuce mm-hmm. am ay mbir. am ay clé am ay clé. Mm-hmm. loolu ki am boroom kër bu taxawee naan ma jonge damay comprendre. de un ñun yàlla dafa am lu mu dogal ci ñun mooy lan. ay nitu cosaan leen am neen aada am cosaan. ci jonge ñun am neen becco. am neen fer. am neen. ñun ay mbir quoi. Mhm. lu war a wone bu dee ci côté sens bële ngay wax. waaw da ngaa yàgg de yow ay. déedéet parce que. loolu laay mën a wax. ñu comprendre que jéggi naa ñii dem sax ba ci sama yaay si yeb naa ko ki ne laam. Mhm. seen jamono. Mhm. wàcc ci suuf. waxuma nuisette yi ak mënut yi ñuy takkaat moo tax koo ci gis yi ñuy def nii seen néeg yi en général wala yeneen moo tax après da nga ci am ay tout tànk yoo xam doo comprendre. parce que Aymar moom mu la jox tout le temps parce que tubaab yi moom dañoo ñëw bu dugg suñu biir ba nga xamante ne fu mu ne nii yàq nañu. ah yaa ngi dégg waaw man moo ma ci gënal man mii di ko ah. mais eh, li may wax nii bu leen mu ko jàppe ndax man ku ma def lu bon ma jël man damaa bon <laughs> waaw waaye nag li may wax na na intéressé ku mu bëgg a intéressé pour pour pour ñu mën a dem pour ñu pour ñu mën a mais nag yow li ngay def nii hypocrite la waaw lu du hypocrite ah, déedéet waxuma maak yow du parce que parce que man bu doon man lii laay def. ba pare nga bëgg ñoo digal leneen. léegi loolu li ma lay digal. mooy li baax li ma lay digal mooy li baax. déedéet mais yow bëgg bëgg bëgg nga li yow li ngay tere. man la ñor maa tey yow li ngay tere yow bëgg nga ko yow. waaw man la ñor. dama bàyyi man la ñor. yaa ngi déglu fii fii góor góor gu ñu mën góor gu ñu mën a te nga jël. lii man maa la ko man ku ma tëj kaso. voilà jigéen bu ma tëj kaso. te mu fekk ne ma tëjandoo kaso nga ah. tëj ah, ah, ma ci ci biir kaso bi ngay ne. man damay bokk yaa ngi dégg mu mu wéy loolu. kaso bu loolu de un clip bi man su ma sañoon dina doon pur Sénégal dafa tubaabee ba mu ëpp. ci jonge ci jonge de un dafa tubaab bi mu xale yi mel ni ku nekk ñu nekk Casa de Papel def ay kàngu. mais eh, peut-être loolu moo xew seen génération waaw ba tey ñoom la seen génération. yii li xew kon baaxul. ok c'est bon nangu naa ba pare man parole yi waroon na gën a mën a am sens ci jonge man man damaa gis ni maanaam. mais nee na man rek lay topp. waaw man man rek lay topp tuus nag waaw man rek lay topp ku ma nopp ku ma nopp sa jëkkër xaw ma dootoo nelaw. xaw amul sens. Ah, yooyu yëpp ci jonge la. déedéet. yooyu yëpp ay ay nafaata ah, man man laa wax man man. Hmm. bu dee moom mélodie bi mélodie bi ci melo man. Mhm. mélodie bi neex na ma mais wéyewul fa mélodie bi ne. parole ya wallaahi azim bu amoon ay parole nga dégg musique bu. maanaam écriture bu complet amul écriture. d'accord son bi amul écriture man ci sama xalaat amul écriture bu amul écriture moom dina complet lii laa gis. d'accord d'accord Ouz moom jàpp na ni maanaam euh, son bi tur bi ak mu nekk ci clip bi dafa wute. yooyu noonu nga ko jàppee ak nekk ci ci ci paroles yi ak ci paroles yi moom dafa wute trop alors non yow sa gis-gis. ci tribunal non man antou euh, francisme peut-être fi nooree nii di waxee euh, comprendre naa fa un peu et que dama koy rejoindre d'un d'un côté euh, d'une part mhm. parce que euh, ñun dañoo am suñu ay réalité te boo nee joŋee par exemple yaa ngi may wan kiiwu uli bi man chaque jour dama fay jël exemple son wu uli bi mooy bi naan sama joŋee dafa kawe mi ngi ci kaw a kaw xale du ko fowee ah ku ci ku ci nopp sama je sais pas nu mu ko waxee noonu dama la dama lay dama lay rendi xaw ma nan nu mu ko waxee noonu mais mais paroles yi moo ma moo ma moo ma rëcc mais da ngay gis ni kii li mu li mu way moom moo méngoo ak paroles yi c'est-à-dire son bi dafa war a méngoo li nga xamante ni moom ngay génnee ci ci ci ci voix bi génnee ko ci parole bi mais aussi style musical bi c'est-à-dire dafa war son bi nga xamante ni moom ngay génnee loolu nag euh, ñu artistiquement parlant ñu bari xamuñu ko. xam-xam mm-hmm. nga pour ñoom dañuy choisir benn style musical bu leen neex teg ci son bu leen neex alors que li musique dafay wax la musique parle mm-hmm. donc li nga xamante ni moom mooy titre bi dafa war a méngoog li nga xamante ni moom mooy euh, musique bi mm-hmm. méngoog li nga xamante ni moom mooy paroles yi voilà donc peut-être loolu dinaa ci rejoindre Noreyni et que euh, soo nee jongee peut-être ñu ngi doon xaar ay cest dire astuce yoo xamante ni dinañ xam ne kat lii jigéen ju jonge moo ko war a def. mais tamit bu ko defoon. Mhm. Sénégal duñ génn encore une fois mais mi ngi def lu gën a garaaw lu gën a garaaw ñun liñ doon xaar ci clip bi. Mhm. est bu ko defoon. Mhm. wane yooyu wane ay manotak ay beneen bi. lu ngeen lu ngeen takk fi seen digg nu mu tudd. ay fer yaa ko gën a xam. barke sëñ xaw ma ko. cristal waaw mais. ay cristal yëpp ay fer man moom xam naa lu la ba ci seen i ndigg xam naa ko man lu la def maanaam war ay mën a takk ay cristal. Mhm. Euh, bu ko defoon Sénégal mhm. doon ne moo. xool ba rek xale bu ndaw bi muy wane lii. Mhm. dafa ñëw pour yàq xale yi. est-ce que duñ ko duñ ko critiquer noonu tamit. man je plus plus d'accord que def ko ci clip comme xam nga que mu koy def. Euh, en dehors de de de de de clip yi muy def comprendre nga li ma wax est-ce que non non non déglu ma xam nga lu tax ma ne en dehors parce que moom dafay publier ay vidéo nga gis ci mu sol lu sexy te booba deful clip tourné wul foofu laay waxee est-ce que nga. voilà nga nga ngay ngay euh, publier ay vidéo yoo xamante ni yaa ngi ci sol lu sexy alors que gis nga clip dafa am lu muy laaj man foofu laa ci nawee. Euh, mën naa leen lim donte artistes sénégalais yëpp ñu ngi def la même chose di sonn ci seeni i mais damay citer trois ba ba quatre personnes Viviane Chidid kenn kenn gënu ko ci clip lu mu lu mu laaj da koy def. Mhm. Wally Ballago Seck pareil. Mhm. yaa ngi dégg Adiouza surtout surtout Adiouza. pour pour pour pour bañ a citer ñëpp rek. Mhm. parce que ku lim da ngay juum mais ñoom da ngay gis ni bu ñuy bu ñuy tourner clip. ak bi mu bi clip bi laaj dañ ko koy jox est-ce que dégg nga ma. ba ci série sénégalaise yi ngay seetaan da ngay gis ni ñu bari dañ leen di critiquer naan rôle bi buñ ma ko joxoon patati patata alors que dañuy jox rôle bi ak bi nga xam ne moom la ñu ko war a jox est-ce que dégg nga ma. donc man damay rejoindre foofu noo rëy nii muy que ni mënoon nañoo xaar puisque jonge la ñu wax. mënoon nañoo xaar ay astuce même bu vulgaireul wala mu mu gën a sexy sax sa à dire paroles yi nekk typiquement jonge pourtant paroles yow xëy na mënoo xam. parce que yow xamoo daraay jonge kuy laaj fer yi ñuy takk ci ndigg nan la tudd kooku man je je parle pas avec toi duma duma débat ak yow ci jonge quand même wat non bu ndaw ah, bu ndaw xamoo dara parce que boo boo boo xamoon doo laajte cristal cristal ak ni mu xewee d'accord cristal jànk ji sax léegi dañ koy sol. mais parce que intéressé waaw mooy dama ne. waaw yow doo ma bàyyi yow lu raw loolu intéressé la tu me parles de intéressé wu ma cristal léegi yow noo def ba xam ne ci ndigg lan koy takk déjà. parce que je l'ai <laughs> foo ko gisee. ah xanaa si site internet bi. Eh, waaw mi ngi foofu laa lay waxee. kon moom en tant que artiste et que. Euh, pour li ko nit ñi di di di di waxal man benn rek laa laa ci laa ci ŋàññ muy que ni baatam neexul dañ ko faral seen petit gàlle dañoo nangam. c'est des critiques yoo xamante ni voilà non nañu nañu bàyyi doomu jàmbur bi mu nekk ci jàmm. voilà donc euh, moom elle a une très belle voix et que clip bi boo koy seetaan wala nga gis Aïcha Koné en tant que telle dangay gis benn Nicki par exemple man ci moom ba ci voix am dama ci gis Viviane. Hmm. donc voilà voilà donc voilà ba pare dafa am loo xamante ni artistes yu bari c'est-à-dire bu ñu ko amoon wala génération bi nga xamante ni moom moo moom la ñu méngool maanaam ñoom la tollool bu ñu ko amoon dépassé nañu fii muy dafa am dafa osé quoi. bête de scène voilà dafa osé. donc ba pare dafa am dafa am euh, présence charismatique. sur scène donc loolu ñu bëgg kook ñu bañ ko am na ko présence scénique am na ko am na voix bi et que macha allah fu mu image am dafay jaay. Mm-hmm. macha allah catuuma ko donc su su su su gënoon su gënoon comme ni ko nooree ni waxee peut-être mu jege ñi nga xam ne parce que bind Viviane sax dañ koy bindal. Mm-hmm. Wally Ballago Seck pareil. mën nga mën nga gis nga gis nga ndaxte loolu. nag bi ñu ko interroger dafa wax lu am solo. dane man bi may bind sama son bi. amoon na son bii nii. nee na amoon na ay paroles yoo xamante ni ki ma doon bindal dana ma yii lii kenn du ko dugal parce que am na way loo xamante ni doo ko ci dugal. comprendre nga da ngay junju et que c'est très très important nit ñi xam ko mm-hmm. donc wax dëgg yàlla man dama koy encourager parce que elle a osé quand même elle a elle a euh, euh, et que euh, waaw na foncé voilà et que na na na na foncé xam ni mm-hmm. wax dëgg yàlla am na loo xamante ni artistes yu yu méngoog moom wala yu tolloog moom âge amuñu ko donc foncel Aïcha Koné et que on t'encourage hmm. ñun ñun ñun ñu ngi lay encouragé bu baax a baax voilà maanaam leen rek laa koy ñaan mhm. bu mu demal boppam noo mën na demal boppam mais mu xool ku koy bindal quand mhm. bu mu demee esprit boppam d'accord am laay wax ok am na ñoo xamante ni ñu ngi ci réew mi dañuy leer Sénégal daa bind mun nañ bind lu jub. waaw ñoom amal bitu musique rek ne lii la. waaw ay the best. Mhm. ak ay ñeneen ak ñeneen. Mhm. kuru kuru mandimoori maanaam bëri na. Mhm. maanaam bëri na ay baxaaw. waay baxaaw waay effectivement ay magam leen ay fereeram leen. Ousmane Nouré. waaw Ousmane Nouré bi sax xam naa mais garaaw. wallahi azim. man Viviane laay dund ci jëmmam man. waaw effectivement dund ci jëmm. moom mooy idolam. waaw na dem na na mën na ko. eh daf ko mën. non sérieux. wallaahi azim. Mm-hmm. man boo waxee ma ne la ndaxte boo waxee ma ne la soxu bébé. Mm-hmm. parce que xam nga lu tax ñoom demeewuñ seen esprit bopp. Mm-hmm. dañ leen renforcer. effectivement na dem ñu renforcer ko ba mu fees toog. mu def merci beaucoup. merci beaucoup Ouze alors nañu wax si li nga xam ne nii peut-être euh, ñu koy dégg ay rumeurs yi nga xam ne ay rumeurs la Ouze euh, benn divorce bi nga xam ne nii benn artiste bi nga xam ni doomam dafa divorcé donc euh, comme kanat cas bi daa xaw a dans su mu te sànq nanaa bu may wax kaa bi moo wan na ma photo artiste bi. Ah.